gëm mi ngi jëm Tiwaawan bu jógee fii dana dem de journal yi bind nañ ko. man mani man mani nga ne Malick Gakou ma ne Amadou Ba nee nañ ma journal yi démb bind nañu ne ma ne jarul def convoi déedéet Amadou Ba seeti <laughs> <laughs> ziare jiwut day dem daa dem pour politique ay journal bind nañ ko fii nee nañ day dem Tiwaawan bu jógee fii na dem fee dem fee loolu yëpp politique kon ziare jiwut day dóori wax pour wax wax la rek da ngay kii nañ def ci sa boobu rek <laughs> voilà maa la dàq tay tay lu fuuf. d'accord <laughs> xam nga dama xoon tailleur sax mais. ah <laughs> man kay nee na bu ñu laalee APR. rek APR gan. ma mooy sa man lu sama yoon ci APR mooy sa cuuraayul dem. man lan laa sama yoon ci APR nga kuñ say say nga bu yàgg. waaw <laughs> nga jàppale war a teel tax doo ko ne émission yi ah. voilà ñu dem ci ñu dem France ak euh, sonkorisation bi nga xamante ni def nañu ko Youssou Ndour démb la am Youssou nduur euh, benn concert boo xam ne si nii moo ngi ko doon tëgg euh, ba mujj yàgg am ñoo xam ne si nii ña nga woon ca saal ba di yuuxu turu Ousmane Sonko naan libéré Ousmane na Sonko noonu ci la daal di def benn pause tàllal leen micro bi may leen cinq minutes. ñu daal di jàllale seen message ñu continuer li nga xamante ni moom moo di as euh, moo di concert am boobu ci jamono joo xam ne si ni euh, fële ca États-Unis tamit mi ngi doon yëngu bu baax a baax ak tournée bi nga xamante ni wala visite bi Macky Sall doon def foofu ci euh, ndaje bu amoon ci Nations Unies donc mu melk nii ni diaspora bi daanaka ñu ngi profito ci euh, xew yi wala rassemblement yi am euh, di scander le nom de Ousmane Sonko pour ñu libérer ko wala euh, di wax injustice bi nga xamante ni Ousmane Sonko mi ngi koy dund Moustapha naka nga jàngate Youssou nduur sonkorisation bi Youssou Ndour tey saa mi ngi koy wax léegi mu ne ko demoon ku ñu waxoon ne dañ dem ba Youssou Ndour dini taxaw di way ñu koy yuuxoo àdduna daal gudd na tànk noo jàngate tey li xew foofu noonu ci concert Youssou Ndour bi dem waaw xam nga dafay wane ne euh, loolee ñu jël noonu yemalewuñu ko léegi ci saadi kese. Mm. gis nga def nañ ko ci match Sénégal bi après àddina bi yëpp bind ci ay article ku nekk wax ci yemuñ ci euh, Modou Lo ak Eumeu euh, Ama Balde def seen signature contrat. Mm. ca Gambie ñu fekk fa ay Gambien dugg ci biir wala ak ñoo xam ne ay sénégalais lañ. libéré sunko libéré Sonko Macky dem New York loolu dal ko fa Youssou Ndour dem Paris loolu dal ko fa. te dafay continuer di di accélérer wu di leen dal di leen dal di leen dal parce que xam nga nit ki nga xamante ne tey jii da dafa war a xeex ak yow nga désarmer ko jëlam lépp lépp ba mu desee làmmiñam kese ak baatam mais moom lay xeex ak yow. Mm-hmm. loolu rek lañ dese fi ñu toll ni pour mën a wéyal seen xeex ñu xam ne man mi am naa lu ma metti foofu lañ toll fi ñu toll te képp koo xam ne dañu jàpp ne euh, ñooñu Macky Sall nga wala Macky Sall nga dañ la ciy yemale dañ naan lan maanaam lañ doon def saa bu ñu ko gisul lañ koy def. Mm-hmm. dafa dañ ko dañ ko def ki nga xamante ni mooy Youssou Ndour mais bokk na ci euh, euh, nu ñu ko mën a tuddee artiste planétaire yi nga xamante ni daanaka jafe woon na wala raaroon na mu doon way nit ñi di ko yuuxoo wala ñu def na ko wala ñuy am benn benn benn benn déggu bi par rapport ak moom suñ demee ba def ko ci seenam c'est parce que am na benn message boo xam ne bëgg nañ koo envoyé mm. te ñoom ñooñee ñëpp ñu ko def boo gisee bu ñu ko defee euh, mbër mi mbër yi woote woon nañ fi ne Macky Sall la ñuy jàppale seen mouvement fu mu toll ñoom ñooñu doon doon def contrat ba noonu ñoom toog bo ama moom euh, demul woon mais ñoom ñooñu woowoon nañ fi ne Macky Sall la ñuy jàppale pour pour troisième candidature xaw ma. Mm-hmm. ñoom tamit dañ leen di fàtte mais ci ñi ñu roulé farine bi ci lañ bokk teg leen nële. Mm-hmm. muy mbëri loolu benn la kon tey jii képp koo xam ne dañu jàpp da nga laale lu jëm ci Macky Sall ak lu ni mel ko boo organisé attends-toi que mu am ñu la yuuxoo wala ñu ni mel. mais dafay loo xamante ne pour man euh, forme la bu ñuy xeexee boo xamante ne moom lañ desee jamono ji. parce que daanaka lépp fépp neutraliser nañ leen fa fépp tëj nañ bunt yeeg yooyu mais ni xeex bu efficace bu am doole boo xamante ne àddina yëpp dañ ciy teg seen ay gën mais démb képp koo xamante ne journaliste culturel nga xam nga événement fes yu mag yu mel noonu bi am bitim réew les journalistes dañuy dem ñu bëri bàyyi ko dëkk bu nekk ñëw toog di jël note mais boo jëloon bés bi di nga ne gis kat ah amoon na kat benn moment mu am benn benn temps boo xam ne gars yi dañu wax Sonko Sonko bon opposant boo xam ne dañ ko faa jàpp ak yi ak yi ak yi cest à chaque fois dañ ne di may opportunité boo xam ne dañuy mën a jël débat bi mm-hmm. lii dafay dafay wane ne tamit euh, wax jee fi nekk rek boo waxee ñu ne da ngay parparloo wala da ngaa far wala nii ak nii mais ñi fekkee tëju Karim Wade fekkee tëjub Khalifa Sall fekkee tëju Ousmane Sonko di nga xam te ñoom seen biir ñoom ñi ko tëj ak ñoom ñi jamononte ak moom xam nañ ne du ñoom ñoo ñëpp ñu lim du sax benn parce que ñële tëj nañ leen évacué leen tëj leen ci kaso bi ñu fàtte leen noonu la demee mm-hmm. mais Sonko dafa nekk ci biti il dérange nga tëj ko si biir kaso bi il continue à déranger te loolu mooy li am léegi nag lii ba ndax am na effet certainement loolu ngay laaj. ndax mën na changer dara ci mbir mais on verra mais de toute façon à chaque fois donte mi ngi prison tey dëkk bu njëkk ba leader politique boo ko mës a naan tëj. à moitié ray nga ko. Mm. da nga ko daan tëj ñu ne ray nga ko. Mm. parce que dootul amati activité moo tax ñu daan wax da nga daan def grève de la fin pour ñuy wax si yow. parce que boo defee grève dinañ ne mi ngi grève nañ def nii mais bu grève bi jeexee Sonko depuis quand kenn amatul nouvelle ci mais teewul mi ngi wéy di occuper actualité mhm. chaque jour une dañuy xëy di bind ci moom plateau yi di xëy di wax ci moom te pourtant dañ koo tëj ci kaso waxatul bindatul liveatul kenn dégg ko mhm. mais loolu pour man see une question boo xam ne nii dañ ko war a poser ñu war a xam na nag nangu ne c'est une personnalité boo xamante ne yemul ak ñeneen ñi dëgg rek la yàlla bëgg mhm. yemul ak ñeneen ñi te loolu euh, je pense que ñi nga xam ne ñoom lañ ko séqal xam nañ ko ba ñenn seenee ay analyse ak ñi leen jege boo waxee ñu ne la xam nga kañ lañ ko commencé nangu. Mm-hmm. bi mu nekkee ci kaso bi. bu njëkk boo masaan wax yéen bu ngeen demee ak waa ji euh, élection mu dóor leen danaa non du leen dóor. Mm-hmm. Euh, moo ne ni mais léegi koo si wéetal boo toog mu ne boo dañoo dof buñ ko bàyyee bu génnee rey leen. Mm-hmm. <laughs> kon ñoom xam nañ ko non je te jure da ngay defal nit émission nga jël ko bu ngeen paree ngeen of ngeen toog si mu ne moo waa ji du génn bu génnee rey leen ñoom ñoo gën a xam loolu ban dëkk la nekk bu génnee rey leen te askan wi war a tànn kii laa bëgg a tànn nga ne ko noonu du tànn parce que bu génnee du ñu arrangé je pense que loolu lépp ay ay problème la yoo xamante ne daal warees na koo mën a joyante Mahfouz ñëwul fii nooy defee émission déglu vocal yow tamit. lii mooy lan urgence mooy lan. waaye sa caaxaan yi urgence la. waaye sa caaxaan pare pare naa. tey moom tey moom ni ngeen ma ñëwee baaxul de tey. ah mais li nga def nii dama jéeg dama am urgence bu ma doon déglu nii te bu ma ko ah, dégluwul woon mën na nekk loo ah, xam ne si doo tontu. maa ngi jéeg waaw du ma tontu mais mën naa dinaa mën a bind <laughs> pour wax ko ne maa émission. Euh, sa Wolof. Euh, hmm. noo noo ko gisee. mooy li ñuy def Ousmane Sonko. waaw li ñuy def euh, Macky Sall. bu njëkk bi eh, mooy sax. waaw Macky Sall def nañ def nañ ko. <laughs> def ko fa états moom moom lañ mujjee def France. voilà Youssou gars yi mere nañ ko de waaw benn buñ ci njëkk mooy Ousmane Sonko xajut ci kaso. dëgg yàlla waa ji naan xaw ma eh, li ku ma. Eh, du ma leetal bu ndaw xajuma si poos hmm? yóbbante. loolu mooy wax ji. Hmm. Sonko xajut ci kaso. loolu benn la beneen mooy message bi euh, njëkkoon naa jàll ci concert bi Wally Seck doon def mais moom nag xamuloon nu ko doon kiyee parce que comme amul bopp Wally Euh, yàlla suturaal na ko mais amul bopp quoi ni mu ko waroon a gisee ni mu waroon a jëlee affaire bi mooy comme lu Youssou Ndour def nii te jamono boobu. bu ko mm. Wally defoon doon na ci xaw a génn tuuti quoi parce que. Mm-hmm. nit ki da ngay jëli lees waxul comme ni ko Youssou Ndour waxee. Wally bi mu ko defee daf ko def ndam tamit ña ko def keroog defee woon ko yëfi tuune muy une partie de. ñenn ci ñoo xam ne bon nee nañu Ousmane Sonko la ñuy safoo man naa am sax duñ moom mais dañoo taxaw génn ci bitti jënduñu tikkee toog ci biti naan yuuxu yuuxu ba nga xam ne ñi ci biir dalay wóor ne ñi waale euh, saf rek a fa nekk. Hmm. mu taxaw jot message bi au lieu moo xam ne nit ñi dañ ko daan bégee tey am na lu doxut mu ne bés mu duggee ci affaire yi mu am ndaat saay ndamu quoi. Hmm. ma koy xamal nag ne ko bala mu ko doon gën a xam mu tiwaatoon ko parce que forme bi gars yi jël. Hmm. dañ ko tàmbali woon ci waali après waali woon leen yoon. ñu ñëw tàmbali ko yus bi yoon. demul dugg ci biir nekk ne ci biir. di la xaar kii ñu sax ñu bëgg Youssou Ndour man mii di ah. wax ak yow. dañ koy yàlla xam na ne Youssou Ndour li ma amoon ci piilu CDM ak cassette man Youssou Ndour ak sëñ Samba yi li ma ci doon yore kenn xamut nu mu toll. Hmm. man ci ñu Youssou Ndour njëkk a décevoir ci laa ci laa bokk. mais bon après da nga koy boycotté dootu demati ci yëfam waaye man yenn saa sax damay dégg wayam bu neex ma ne waa kon Youssou Ndour way na fi lii parce que ma ko dégg mais. bu ñëwee ba ma ko ca dégg dinaa ci bàyyi xel parce que bu dee waxam bu amee njariñ dama ciy bàyyi xel. Mm. mais lii ñëw euh, keroog démb mu xaw ci def ab ak mat quoi gars yi nag ñaanuñ ko ba mm-hmm. may. mais xaw naa na ci grandeur non non bien sûr. may neen nit doo forcé non nit nit doo forcé gis nga nit. Mm. am na fooy toll doo forcé nit ñi sax ñaanuñ la dañoo jël. Mm. mais yaay liggéey ak sa xel. parce que loolu Wade mos na ko def xam nga maa ko fiy nettali bu ko Samuel Eto'o defee woon fii Sénégal dafa ñëw ñu ko yooxoo affaire yi hmm. mu ñëw ba ci fii géttu ba def nii loxo benn signe mbooloo mi yëpp ne ñun ñëpp benn der bu ñuul lañ mais nit ñi après loolu yuuxoo yi soppli ko ay tàcc Wade def na ko Mbàkke xale yi di kii jël ay brassard ak yooyu mu ne oto bi na taxaw ñu taxaw mu waleen leen lan la ñu ne ko lycée wax seen jàmbat mu ne leen loolu kay lu war a am la yu xooy soppali ko ay tàccu Youssou Ndour def na ko démb mais jote day day jiitu joote maanaam Youssou Ndour waroon naa teel a jot askan wi même ànd ak Macky Sall waroon na koy def ak avec intelligence donte Macky nag booy ànd ak moom du du du bëgg nga bàyyi dara moom da ngay ñàkk jom ba jusqu'au bout te loolu baaxul ci Youssou Ndour même baaxul ci Macky Sall parce que Youssou Ndour bi nga xam ne ni ñaa ngi ko doon naw bu doon continuer di dese benn crédibilité su nee dama ne sax gars yi danañ ko déglu yenn saa yi sax mu mën a def dara wax ak membre di guvernement parce que Youssou Ndour sentinelle la waroon a doon Youssou Ndour li ko Sénégal doon doyee dëgg-dëgg du woon nekk ministre ci gouvernement Macky Sall du woon nekk conseil boo xam ne conseil Macky Sall di jël nangam ak nangam mënoon na jariñ Macky Sall ba pare des hmm. ci kii bi euh, des ak peuple bi même bu élection jotee mu dem ànd ak moom mais bu dëgg jotee mu wax ba fu mettee amee mais démb nag loolu moo am te lii teeñ la rek yan bi ñëwagul est-ce que xam nga danañ dem ba boo xam ne du sénégalais sax stade football wala tey mu nekk concert boo xam ne tey euh, nu ñu koy waxee ci ban artiste américain wala nangam moo koy tëgg sax sénégalais taxaw ki génn ñëw ne libéré Sonko wala nangam après lan la artiste boobu di def kan mooy Sonko. ñoo ñu ne ko ah, benn nangam nangam parce que loolu Sénégal mosoon na ci toll léegi gars yi dañuy fàtte rek Nelson Mandela lan moo ko libéré mais ay Youssou Ndour William Makeba ak euh, Youssou Ndour Kiné Lam Kumba Gawlo ñooñu ñoo fa doon nekk di ko kii ay Omar Pène ay Ismaïla Lo ba nga xam ne mu gi centre monde bi yëpp ñoom tamit commencé jël affaire bi ñu commencé jël ba nga xam ne bu Londres bu ñu tëggee Londres. Mhm. ñu ñëw commencé Mandela Mandela brandir ay affaire gars yi ne kuy Mandela ñu doog xam lan mooy le te xam ne kii la ñu daal ciy taxaw. te li nga wax nii di nga gis benn artiste américain wala kenn benn concert ba ci biir mën a libéré Sonko. si libéré Sonko parce que tubaab yi léegi ñoom dañuy daf leen a ñor. da nga gis ay sénégalais ñooy taxaw expliqué leen tubaab yi seen restaurant la ñuy toog wala ndaa nga commencé libéré Sonko yaa ngi koy gis ci TikTok bi. parce ko way. loolu kanam la jëm. te àdduna bi léegi village planétaire la. Mhm. xam nga dafa commencé ci Youssou dañ ko fay jéggi. léegi dañuy dem ba keneen mooy teg soit Sakira wala keneen ku miinuma gaa yi wala wala wala wala nu ko waa ji ndax wayati na sax non non ak waa ji keneen ki laay wax te ëmboon Rihanna laa ak Beyoncé ñooñu laay wax hmm. man damaa damaa bran damaa branché wut nag ngeen ngeen ngeen ah, wàll wala ay Maître Gims wala genre affaire yooyu eh Maître Gims Gims tojatul de non Gims mi ngi toj de Gims tojul Gims mi de kan mooy toj fi mu toll kii mooy toj nu mu tuddati te def na gis naa mu def benn son fan yi lépp mu neex ak. Euh, Fally ak Fally Ipupa. Fally Ipupa waaw Fally Ipupa. waaw dafa a toj. voilà day toj waaw ay borom sikkim bi yow sa <laughs> de ay man ceddo bi sax xaw ma ñooñu. <laughs> xam nga ñun nag dañuy ñu <laughs> gis ñee ñu xool nga man maa ngi ree lu ma war sax loolu danañ dem ba ñooñu danañ mm. taxaw tey. di def seen concert nit ñi wax loolu wala président hmm. Amérique dem di def benn euh, mbir foo xam ne sax ay sénégalais seen yoon newu fa ñu génn ne ko nàngam loolu day dem ba da leen sonal ñoom parce que nag problème bi mooy day mel ni ay complice lañ maam ñoom hmm. mënuñu benn affaire bu xew ñu tëb bu fekkoon ne lii bi la xew wala nangam ñi commencé terroriste terroriste commencé ko ngandal ñu jàpp sénégalais yi ak Sénégal tamit vitrine bi mu nekk xam nga Sénégal su fekkee ne dafa dem ba yàqu fii ñu toll nii tey kenn xalaatu ko woon Sénégal su ñuy xool man damaa jàpp ne Amérique yóbbu lu ñu dara ci wàllu démocratie gis nga ni américain yi def kero di ñaxtu policiers yi taxaw di modere gisoo benn affaire dérapage bu fa am wala nangam fekk nekkul violent duñ la jàpp jàppuñ fa kenn même kuréel mi ñu doon wax sax maa ngi commencé gis gi gars yi di victimiser naan ñu dóor ko ñu naat te gisuma fuñ ko dóoree xëpp ndox la wala affaire yooyu ca la yam moo tax loolu gisoo ñu def ci dara. Hmm. léegi nag bu ñu demee ba yooyu di xew ak Amérique ñu xam leen ci démocratie Euh, ñu fiy dugal seen ay wërsëg loo xam ne euh, seen xaalis loo xam ne ay doomi Amérique ñoo ko cotiser ak yooyu loolu bu koy dem ba wax day daal di wëlbatiwaat dal ci gouvernement américain moo tax fi mu toll nii Joe Biden lu mu nekk nekk sa xarit xaaral yow Macky Sall la ëllëg tuuti nga gis Joe Biden dalay wax ne la ah lii mënatul dem parce que dafa am fu démocratie américain yegg France yegg fa Sénégal it yegg fa kon Sénégal bu commencé yàqu yàqu yàqu Sénégal weesu démocratie mënatoo fee exercer dara nit mënatu fee mars mënatu fee nangu loolu amul ku ko waroon a xalaat ci Sénégal Sénégal boobu tey dafa doon locomotive boo xam ne ci Afrique yépp su ñuy wax démocratie moom la ñuy wax. tey jii mm-hmm. tey dañ lay jéggi. seul pays bu fa amee coup d'état mi ngi noonu. Mm-hmm. yow amoo coup d'état autant de personnes faatu fi ñi fi am coup d'état sax kenn reyu fa nit. Mm-hmm. ñun ñuy jàpp nit ñi di leen rey enquête du am ay bavure policier wala FDS yi di def ay bavure yoo xam ne nii mooy loolu. loolu tamit mënul continuer. àdduna hmm. mënuñ la seetaan mais da ngay sóor tamit ban campagne électorale la nañu am. pour man nit ñi duñu def projection boobu ban campagne la ñu. yàgg naa boobu ban campagne la jëm parce que su fekkente ne su nit ki si ah, mais su fekkente ne noonu lay demee tamit xam nga élection da daan nit caravane romb la bokk ñoom sa yoon nekku si waaye bii pa ñoom ñi faree ñoom ndax bokk ñoom di romb sa yoon nekku si ñu lay ah, seetaan ñoom bi ñu campagne bu dee campagne tamit ah, nañ tàmbali ñoom dama ñoom waa Pastef dinañ bokk a tamit nag nañu bokk li jaaxal gars yi bu ñu bokkee kay bu nañu campagne seen campagne rek mais xam nga hmm? xam nga pour man te euh, mbir mbir mi de tey ji ñoom ñi ñu dénk réew mi xam nañu xel ne ni muy déranger dafa garaaw hmm. jëlee match Sénégal Algérie bi ñu fi doon football hmm. pour man jàngat bi ci gën a am solo te nit ñi bàyyi ñu si xel mooy hymne national bi waa ji gars yi ne une minute ak une minute de silence une minute de silence mu jël gars yi naan oh oh une minute une minute de silence la waaye ko def ko une libéré Sonko libéré ñu ñu chanté hymne national xam nga fekkente ne tey ji ku mel ni boo demee dëkk ku mel ni Amérique kooku dañ koy gëmloo xale bu nekkee à ñuy def ci moom ay slogan ay baat ñoom di ko gëmloo ni yow doomu Amérique bi nit gënu la yow doomu Amérique bi c'est l'Amérique avant l'américain mm-hmm. sa dëkk ngay jiital yow defoo loolu sa sa doomu Sénégal defoo loolu si doomu Sénégal dugaloo ko seen bopp mm. defoo discipline bi war seen bopp ba pare yóbbu ko ci benn front bi mais bu wëlbati koo jàkkaarloo ak yow lépp luy institution lépp luy démocratie fële la koy kajji parce que li mu gis yaakaar ne moom la bëgg moom nga ko bëgg xañ mm-hmm. te loolu lañ nekkee dund fi ñu toll nii moo tax amuñ ci xaajee ak seen amuñ ci musicien bi amuñ ci mbër mi amuñ ci équipe nationale da nga gis ñoom seen bëgg-bëgg dañoo nekk di leen jaay doole moo tax lépp loo xam ne c'est Sénégal lépp loo xam ne réew ñoom léegi seen yoon nekkatu si ah mm-hmm. instant bi moom patriotisme égal bëgg Sonko et loolu et loolu problème parce que yow yaa yóbbu foofu sénégalais yi non non si loolu la parce que problème bi mooy yow. Sénégal Sénégal noo ko mën a comparer foofu lañ toll. dem nañ ba équipe nationale di football kenn lijjanteetul ay rëq-rëq. Aliou Cissé loolu politique boobu moo dem xam nga tey bu dee. sport dafa bokk moom laa lay wax lépp espace bi moo yegg fii. waaw ah, moo ñu indi fii ñan ñoo njëkk a espace bi. xam nga yow Coupe d'Afrique bu ñu la waxee ngay